lii di corps électoral bi laas ne ko atel yamu ca ndaxte yëfi tamit yóbbu na ko ca cour de justice bu CEDEAO moo tax kon Sud Quotidien ne opposition bi jamono ji xeex bi ngir organisation élection législative yi moom ci wàllub yoon lañ ko yóbbu Dakar Times ne ko li ko waral bokk na ci lu toll ci fukk ak juróom ni ay violation de loi yi nga xamante ne kon jàpp nañ ni njiitu réew mi Bassirou Diomaye fay def na ko le quotidien yéenekaay yokk ci ni kon atel jamono ji taxaw na tembe ngir defante nguur gi jëm ci processus électoral goge di xeex processus électoral bi wëlbatikuwaat di waajal yile élection législative ndax enquête yéeni nee ñu ñu ngi ci ay manœuvre yu doy waar ndax parti politique yi ñu ngi samp ay alliance yi nga xamante ne daanaka kenn xalaatu ko woon suñu naataango yi di ci lim li APR UCS ak PDS daal di nas ñu duppee ko ab bloc libéral yokk nañ ci tamit coow yi tàmbalee juddu ci yenn ci ay parti parti yi nekk ci opposition bi di waajal lu rëy Vox Populi di xam ne ni kon ñu ngi laam-laamee sax ab bi nga xamante ne kon moom la ñu fas yéene yóbbu ci législative yooyee bokk na ci takku wàllu mi war a ëmb APR PDS réew mi ak yeneen parti jàmm ak njëriñ mi ëmb nouvelle responsabilité bu amadu Ba PS ak ñeneen ak tamit sàmm suñu kàddu bi dajale taxaw bu xalifa Sall gëm sa bopp PUR ak PRP ñoom ñëpp lu ñu namm mooy def li xewoon ci élection législative 2022 yi yéenekaay bi di ñu yëgal ni sax biig ñoom daje nañu ci seeni biir ci biir bis bi la jour yi tamit ñu ñuy wax ci coalition yi nga xamante ne ñoom ñooy juddu ñu koy méngale sax ni ay soldat yu def ay bataillon ku nekk di xool nooy demee xare coalition yooyu yëpp di xool ana nañ la ñuy xëccee Aly Ngouille Ndiaye ca jamono ji nga xamante ne Mame Boye Diao moom daw na fekki Ousmane Sonko moo tax la tribune yéene kaay gis ni moom Mame Boye Diao mooy transhumant bu njëkk bu Ousmane Sonko ndax fekki na ko ngir jëm ci législative yi ñu dëgmal yooyu les législatives ak critique dikk na ci di wax càkkuteef bi nga xamante ne moo tukkee ci Alioune Tine bokk na ci ñu jëm ci bulletin unique li ko waral nee na app bi nga xamante ne gàtt na lool parrainage nga xamante ne mën nañoo njort ay liste yu bëri te loolee ngir gën koo yombal aji wote tey boole lépp ci ab bulletin unique mooy li gën Walf Quotidien gis ni lu gënoon tey mooy Ousmane son daal di dakkal ndajeek taskatu xibaar yi nga xamante ne war na ko amal niki tey ji ngir addu ci anam yi nga xamante ne moom la ñu fekkee réew mi mu war a feggoo ak lu ñuy fàttali tey ji anniversaire u suuxub batul Joola mu gis ni yile kàddu yu njiital jëwriñ yi war a tey ji boo moytul sax mu muur bi le xew-xew nga xamante ne ab la bu askanu Sénégal Samba Am moom jiital Pastef tey jii dina addu ci situation socio-économique bi nga xamante ne moom la ñu fekkee Sénégal l'observateur mel ni ku koy jiitu di yëgle ca teel anam yi nga xamante ne Sénégal suuxee na ko nee ñu lu toll ci téeméer ak fukk ak benn milliard moom la réew mi di ñàkk at mu yàlla sàkka te dara waralu ko lu dul fraude ak évasion fiscale yokk ci mbir mi ni kon lim ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi ndóol yokk nañu ba jéggi dayoo ndax toll nañu ci ñaar téeméeri junni doomu aadama ca New York ga mu nekk l'info yéenekaay du ñu xamal ni njiital réewu Sénégal di Bassirou Diomaye fay wax na démb dëgg yu wër peng ñi jiite mbootaayu xeet yi dëgg gi ci biir yeneekaay bi di yor-yor mooy Bassirou Diomaye fay li mu sàkku ni ki démb ñu fexe ba tollale réew yi ku ci nekk ñu bàyyi ko ak li mu gëm te bañ a forcer kenn dara ak ak yeleef doomu aadama ñu fexe tamit ba di ci tënku ci bépp réew ak ci bépp anam kàddu yi njiitu réew mu Sénégal yëkkati Le Soleil yéenekaay gis ni kon lii moom dina dugg ci taarixu mbootaayu xeet yi ndax démb moom Bassirou Diomaye Faye amul lu mu fàtte lu jëm ci utum jàmm ci àdduna wërngal këpp mu ŋàññ li nga xamante ne moom la réew tugal mel ni ñu taxaw banque seen loxo di seetaan li xew ca Sahel ŋàññi tamit boom bi nga xamante ne Israël mu ngi koy def ca Gaza te mbootaayu xeet yi ba ci sax dëkk yi nga xamante ne ñoo am doole dafa mel ni yëgaluñu ko seen yaram Libération di ñu yëgal ni Khadim Ba borom Lok Afrique mujj nañ ko duut ab mandat de dépôt te douane moo ni sàkku moom homme d'affaires bi nee ñu coowal koppar lu toll ci ñaar téeméer fukk ak juróomi milliards moom mooy li ko topp réew mi quotidien toppaat kaw Jérôme Bandiaki yéene kaay groupe réew mi network bi dañu xamal ni kon moom agent de sécurité ba APR mujj nañ ko du ab mandat de dépôt ni ki démb démb gaynde yu Sénégal daan nañu Guinée ci jongante bi ajoon ci demi-finale tournoi UFOA gone yi Serigne Saliou Dia kon mujj am seen qualification ngir final waaye tamit ngir Coupe d'Afrique bi ñeel ñi nga xamante ne seen at yasagul ñaar fukk record yéene kaay di ko dëggal ne gaynde yu ndaw yi démb ab coup bu rëy lañu dóor